société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen di may seen revue jàngeen jëf ñu ànd yër yéene yi xëy tey ji tàmbale ko ci réew mi quotidien mi nga xamante ne dikkaat nag ñun ci melokaanu ndakaaru ëllëgu tabaski yéene bi di xam ne ni kon lu toll ci juróom benn junniy tonn mbalit la ñu jëlee ci capital bi beneen xar kanam bi mooy yenn kamb yi nga xamante ne foo tourné gis ko fa lu mooy mbalit mi daanaka ndakaaru ci tekk-tekkaaral la nekk suñu naatangooy di xam ne ni kon amul benn yëngu-yëngu bu ñu nemmeeku ci capital bi jëm sax ci wàllub njënd ak njaay ba ci sax entreprise yi li yépp di njeexitalu tabaski bi moo tax Le Soleil yéenekaay tamit gis ni tabaski ci boppam daanaka covid 19 bi moo ci fës Sud Quotidien mel ni ku koy feelu gis ni tabaski 2021 bi moom lu jëm ci xutba yi tukkee ci imaam yi yépp daanaka kàddu gi benn la ñépp bokk addu ci covid 19 bi nga xamante ne moo lëmbeyaat réew mi ci yéenekaay groupe Sud Communication bi njiitu réew mi Macky Sall mel na ni ku yuuxu wàllu jëmale ko ci force vive de la nation càkkuteefu Macky Sall mooy fexe xamante ñoom ñooy ndaw yi am fukki at ak juróom-ñett daal di dem ñàkku ji e kàddug njiitu réew mi tamit ci réew mi quotidien moom Macky Sall gis ni ñàkku kese mooy tax ba Sénégal bi wax na tamit ci ne am nañ ko ci vaccin bi nga xamante ne moo tukkee ci États-Unis di Johnson and Johnson li waral nag covid-19 bi ëppi loxo l'observateur dikk na ci doomu aadama yi ci ñàkk seen bakkan diggante ñaari fan rek toll nañu ci ñaar fukk yéene kaay bi dafa taxaw seetlu ni kon dafa mel ni askanub Sénégal ci boppam léegi ñoo ragalatul benn yoon jàngoro ji di covid 19 moo tax scientifique yi jamono ji ñoom ci tiitange la ñu nekk naka noone wax na ci li nga xamante ne moo ëpp bopp njiitu réew mi Macky Sall ngir jël ci ay dogal li am ba am faaw ñu farlu ci xeex bi ci vox populi joriñ ju ñu dénk wàllu wërgu-yaram moo ni artu muy gis ni kon bu fekkante ne jóguñu ci yëf yi mën naa ëppi loxo ci lu jëm ci feebar bi ndax lim ñi feebar te nekk ci hôpitaux yi ma ngay gën di yokku te boo moyul duñu di dalal lii covid 19 yemul rek ci lim ñi nga xamante ne kon ñoo ci laale bokk na ci koppar gi nga xamante ne moom lañ ci def ngir xeex ko Walf Quotidien xëy tey dikkaat ak ñun ci rapport bi nga xamante ne moo ñeel force covid 19 te comité bi ko yor daal di koy jébbal njiitu réew mi Macky Sall yéenekaay bi dikkaat na ci chiffre yi nga xamante ne ñoo jur coow ci réew Sénégal rawatina koppar googe anam yi nga xamante ne moom lañu ko jëfandikoo enquête quotidien di ko ci feelu gis ni ci biir rappor commité de suivi des fonds covid bi lu toll ci benn junni milliard yi nga xamante ne kon moom la ñu annoncé woon yoon daanaka lu jege juróom-ñetti téeméeri milliards lañ ci jëfandikoo ci xët bu njëkk direct news nataalu Awa Diop moo fa fës jege ñaale maître Abdoulaye Wade bi bokkoon ci parti démocratique sénégalais moo dëddu àdduna ci bésub tabaski gi yéenekaay bi dikkaat ci jaar-jaaram waaye tamit kàddu yi tukkee ci ay jege ñaaleem nga xamante ne ñëpp a ka woon ci biir parti démocratique sénégalais ci biir libération drogue gu bëri lañu fa nemmeeku ndax yéenekaay bi daf ñu nettali anam yi nga xamante ne drogue bi mu ngi ko doon circuler ci Sénégal ci diggante Pikine ak ginnaaw raay ndax gaz la way jëfandikuy wala sax ñi koy jaay di dugal yëf yi ngir mën a kon rawale seeni marchandise waaye police mujj na leen teg loxo bu ñu sukkandikoo ci libération yéenekaay bi dikkaat ak ñun ci ay éléments yu njëkk yu tukkee ci enquête bi nga xamante ne moo ñeel faatub douanier bi ci diwaanu Rosso nga xamante ne dañu ko def ci anam yu ñaaw ana kan moo war a jiite fédération sénégalaise bu football daanaka mbetteel amatu ca stade quotidien di xam ne ni kon maître Augustin Senghor dafa mel ni dañu ko xalal yoon wi l'observateur ne ko déet ndax kii di Madi jiite génération foot dafa mel ni ku fas yéene jàmmarloo ak moom ñi fas yéene jàmmarloo ci ay bés yi ñu dëgmal bokk na ci Siteu ak Papa Sow waaye tamit booy Niang 2 ak tafatin waaye combat yooyu yépp suñu làmb dinu xam ne ni kon boo moytul ci guuta a jëm li ko waral mooy mbasum covid-19 bi nga xamante ne moo ngay wéy di gën di law ci réew mi moo tax yéenekaay bi di sampab laaj ndaxam combat yooye mënees nañ koo amal bi ñu war a amal ba noppi diggante Balla Gaye numéro 2 ak Bombardier boobee daanaka ci semi huis clos lay doon Gaston Mbengue ki ko tëgg moo ko xam ne ci suñu làmba